salaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ne yenn yéenay seetaan Senaf info ak seen info TV tey nag tey ñu ngi euh, fas yéene seq ak euh, kilifa gi nga xamante ne nii euh, jéego yu am solo def na ko ci gàmmu Mbacké gàmm gi mu def ci ay jéego yu am solo déployé ay nit fenn fu ci nekk ci biir Sénégal ñu ñëw màggal guddik Seydina Muhammad waaye ci biir màggal giit mu def ci loo xam ne dafa am solo mooy li nga xamante ne li ñuy wax naan la santé euh, elle est tellement précieuse ñu déployer ay médecins yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ba université au niveau du COUD ñëw ànd ak moom ci consultation gratuite boobu xam naa di ngeen ko gis ci image yi bu neexee yàlla mais balaa ñuy sori ci waxtaan wi euh, dañu bëgg koy bàyyi rek mu nuyoo ak askan wi euh, kilifa gi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa kon ñu wax asalaamaaleykum rek. wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Souleymane ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziyaara. ñu ngi am kontaan ci sa teewaay fii ci kër gi. ginnaaw bu ñu bokk ak yow Pakacar Seko. ca gàmmu ga. ca xaddara si ma Hadji Mamour Satuba. tabaarakallaahu ñu nuyu mboolem ñoo xam ne ñoom lañ fa fekkatoon. ak njaboot gi ci biir kër gi yëpp. Ah, bu loolu bay soo xam naa askanu Sénégal yi bëgg nañu xam tur bi naa dañuy bàyyi rek nga dellu si ci tur bi tur bi nag la. waaw mën nag euh, ñu ngi may wax Ousseynou Dramé. Mm-hmm. ñu bëri gën maa xam ci Cheikh bi. Mm-hmm. Euh, tabaarakallaahu ñu doomi Saalum. Mm-hmm. doomi commune bu caare waaye juddoo ci kërug daara muy këru Cheikh Seydi Aji Maamou Satou ci ñaar ñoo xam ne muy Seydi Boubacar tabaarakallaahu ak soxna Njéeme Sakho ci ñaar ñooñu dañuy juddoo tabaarakallaahu yaroo ci daara nag ba toll nii waaye ba tey tamit ñu nekk ci biir daara nag kon loolu daal moom mooy question bi Souleymane waa loolu feeñ na ci parce que maanaam bi ku ñëw ci dëkk ba dina xam ne kër gi dëkku bi dëkku daara la euh, yow it euh, feeñal nga ko ci yu bari euh, nekk nitu daara sax xëy na looloo tax ngay bàyyi xel askan wi bàyyi gi nga leen bàyyi xel aussi moo sabab li tax nga jël ay nit ñu bàyyi ko fu ne ñu ñëw taxawu sa waa dëkk waaw parce que loolu loolu mooy dëkk bi tax nga mel ni nga mel li nga ko mën a njukkalee rek loo am lu bàyyi ko ci biti nga indi ko ci biir dëkk bi est-ce que lu la yombalal sa diggante yow ak médecin yi waaw Souleymane jërëjëf. Hmm. Euh, kanaa relation bu rafet rek. Hmm. Euh, parce que kin ci njëkk a xamante ne mooy docteur Djibi Djibril Dia. Mhm. moom mi nga xam ne mooy médecin chef arsoyen bu kuddu. Mhm. tabaaraka laaw nga xam ne gars yi yëpp ñoom moom ñoom ñoo ànd. Mhm. ñoom lañ njëkkante xamante ci diggante malade. ak docteuram euh, yàlla def relation bi rafet. di dox ba muy dem ba nekk bokk. ñu dem a dem ba waa këram ak suñu waa kër nekk benn. ñu am relation bu rafet su demee bay tudd wala muy jël jabar sax man maay yore léppam ñu dem ba ñim xamanteen ñoom itamit yàlla def ñu xamante ma téye ma noonu comme moom niñ ma téye muy docteur Ndiaye docteur Seck fa laa am na beneen xarit bu ñuy wax docteur Abdou Laat mhm. ñu ñu xam ànd ak ñun ñooñu relation bu rafet mhm. lépp lu ñu nekk ma yëg ko mhm. lépp loo xam ne bëgg nañ ko woo ma téléphone wu laaj ma ci su leen def leen ñu def su leen bàyyi leen ñu bàyyi loolu nag moo indi dem ba jur bokk ma gis ne ñoom ci biir liggéey bi ni ma leen gisee keroog ba ma ñëwee dañoo jël mbir mi def ko seen mbiru bopp di liggéey ak yéene waaye it dafa mel ne am nga benn taxawaay bu rëy boo xam ne am nga ci ko ci dëkk ba mu mel ne ñun am nañ for nañ ci weyu béy ay ñoo ay kàddu ngërëmaande goo xam ne ni askan wi wala sa biir dëkk ba nga dëkk ñu ngi la koy jagleel bari nañ ci ñoo xam ne ñu ngi lay gërëm yow ngërmaande googu lu mu def ci yow waaw ngërmaande man mooy tax sax bu ma doon dawee benn tànk mm-hmm. dinaa di ma daw ñaar mm-hmm. ndax nit ñi bu ñu amee ci yow yaakaar mm-hmm. dañ laa sas te yàlla def na dëkk ba comme ni nga ko waxee muy mag muy ndaw yàlla dafa def ñoom ñëpp ñu am ci man yaakaar am ci man cofeel may tamit nag yàlla bindee ma noo xam ne su ma sañoon fépp foo xam ne bokk naa fa ña fay jëriñi ca lay bokk léegi nag su ma nekkee ci biti bépp moyen boo xam ne am naa ko. Mhm. mu mën a dem pakacar mhm. te bu demee jëriñ leen. Ah, ah, moom moom moom dinaa fexe mu dem pakacar laaw <laughs> loolu mooy sama diggante waa dëkk ba. Mhm. muy lu yàgg nag. donte maanaam xale laa. waaye bi dama màgg di màggaale loolu. dama daan am benn cent franc sax. gis ni nit soxla na ko. ma yëkkati ko jox ko ko. loolu nag ci lañ ma yar ba ma ba nii. Uh-huh. bi loolu weesoo ñu gis ne même ñi nga xam ne nii say soxna yi nga xamante ne nii euh, ñu ngi nekk ak yow ñoom it am nañ ci taxawaay bu yaatu ndax gan dëkk dafa métti euh, gàmmu yàggul mais gis nañ ne moom keroog noppaluwul mhm. mu ngi topp ci gan yi dama ko dikk dama ko dikk mhm. euh, tey mhm. lan mooy sa secret yow ak ñoom ba nga xamante ne nii gàmm gi bu amee ñoom dañ koy def seen it seen itte boobu waaw Souleymane hmm. loolu moom dinañ ci sawar a toll tontu lool hmm. xam nga yàlla daf ma boole soxna yu baax hmm. muy soxna Adja mi nga xam ne moo fi jiitu ak soxna Ndeye Fatou mi toog mi nga xam ne moo topp ci ginnaawam yàlla daf ma boole ak soxna yu baax te yonent bi dafa waxoon ne maanaam boo amee soxna su baax rek sa kër dina dina taxaw euh, muy soxna yu ma yërëm soxna yu ma bëgg te yàlla rek tax nag soxna yoo xam ne dañuy sacrifier sa seen bopp ngir man lu baree bare bari dañ koy def loo xam ne duur seen wargar man la waroon ñu def ko à ma place pour rek maanaam kër gi nu mu stable nu fi sosore gën a yaatoo lii ñu taxawee nag avant pakacar la diiran bourde bi yëpp fii lañ ko doon defee ci kaw mais bu xasee seen xase jot ñu noppalu ñu ngi ci beñe ba ñu ngi ci café ba ñu ngi ci attaay bi ñu ngi ci reer yi ba heure bii gars yi di budde ba pare ñu jël lépp jox ko nit ñi bu ko defee ñun ñu doog dem noppalu ji ñoom ñoo doog a nag di raxasaat seeni bool di prévoir at di taalaat pour suba te loolu événement bu ñëw ñoom ñaar ñi ñëpp noonu la ñu nekkee ak seeni xarit yi ñu àndal laa ki leen jiite nag di soxna Jeene ba Sekk mm-hmm. nekk jigéen gu mën góor mm-hmm. gu jàmbaare mm-hmm. bëgg lislaam moo léegi la newoon ci kaw ci addara bi mhm. moom ñoom soxna Penda Sarr mhm. ak suñu rakk soxna Ndey Xadi Dramé mhm. ak soxna Xadi Saaxuyin ñoo ñoo ñoo wër ji ak soxna mami soxna aji soxna Ndey Sarr ñun ñooy jigéeni daara ji ñu xamaat tamit jigéen ku jàmbaare muy soxna Nogay Wàdd tabaarakallaahu di góor góorlu ci daara ji waxtu ne fu mu toll ak soxna Aadama soxna sata ñu ñoo xam ne nii ñoo ngënk daara ji ba tax so amuñ benn problème ci jigéen ko ñu dimbale mm. tabaarakalaa daara ji nag rëy na mm. waaye nag yëguñ ko ndax jàppale nañu ci mm. ñu gis euh, bi ñu bàyyi ko foofu demoon nañ ca waañ ba mais ku ñu tàllal micro rek yow lay tudd Ousmane Dramé di jël ay kàddu ngërmaande di la ko jagleel dem na ba mujj gi ñun gis nañ ne oh, danga bokk ci famille bi mais dafa dem ba mel ne mujj gi gàmm gi gàmmuk Euh, Seydina Ousmane la parce que ku yëkkati kàddu rek yow lay gërëm loolu lu mu def ci yow ngërëmaande googu. waaw loolu moom euh, rëy si man lool. te motivé ne ma tamit ma gën a xamaat sama bopp. parce que buñ lay gërëm. Euh, gërëm googu da nga koy jël la place de soññi. maanaam dañ lay ñaax. pour nga gën a góorgóorlu. pour nga gën a xam fi nga bokk. ñoom ñoo ñu doon ko wax ñëpp samay rakk leen ñii samay doomi nijaay leen kon xam nga kon maa ñoom ñoo bokk juddu gënuma leen ci benn côté. xam nañu xam at mii du ñëwaat waaw incha allah Souleymane at mii di ñëwaat bu soobee yàlla. Mhm. ñu ñaan yàlla ci barkeb guddi gi ñu bàyyi ko. Mhm. yàlla dimbale ñu fekkee ko ci jàmm. Euh, fas nañ li nekkoon nii ñu gën ko yaatal. macha allah yal yal yàlla mottali tey boo amoon kàddu yooyu yooyu dénk sénégalais yi lay seetaan yi nekk bitim réew ak yi nekk fii ci biir mbuur ak say gan yi nga xamante ne ñëwoon ñëwaloon nañ la ak waa dëkk bi tey boo amoon kàdd yoo leen di dénk lan nga leen di dénk waaw li leen di dénk rek mooy maanaam Ousseynou moom benn doomu aadama la boo xam ne bu ñàkk solo mm-hmm. yàlla defi tamit yàlla booleel ni ma ñoom mm-hmm. surtout bu dee fii ci mbuur mm-hmm. bi nga fi ñëwee léegi yàggul euh, ñaari ar rek laa fi war a def waaye dafa mel ni Mbour léegi maa ko moom ndax euh, muy daayira yi hmm. muy association yi hmm. surtout bu sëñ Tidiane bu marché central bi mu de euh, président ass mi ma nekkat fii hmm. maa ngi koy gërëm bu baax As ak euh, sëñ Abdou Niang ak sëñ Ngom ñoom ñi nga xam ne ñoo teewaloon daayira ba ñu ngi jaar ci ñoom gërëm leen sant leen bu baax a baax a baax a baax ndax si acte bi ñu def donte ci daara ji lañ bokk waaye dafa rafet ñu ñëw teewal ñëpp bàyyi seen yitte mm-hmm. yendu fa fanaan fa bu bët set mm-hmm. ñuy dem ñuy daal di dellusiwaat mboo mm-hmm. waaye tamit ñu gërëm sa waa ji it ngañ bu baax kenn la ci man ku ma jàppale ku ma fonk ku bëgg maa ngi koy gërëm di ko sant Souleymane yi maa lay gërëm sa sa sa liggéey rafet na trop am professionnalisme bi feeñ na lool wax dëgg yàlla par rapport yi ñuy gis defee ñu doole li ñuy wax ñun tamit bu déwénee mm-hmm. yow it booy ñëw nga ñëwaat neneen ñu gën a yaatu ni nga ñëwee nii tabaarakallaahu ñu ngi sant ñëpp mm-hmm. ñu gërëm ñëpp mm-hmm. gërëm suñuy waajur yi nag xalifa bi commencé ci moom nga xam ne ni jàmbaaru kër ki la lépp la ngay gis foofu moom moo ko def moo ko ay rakkam ku mel ne Seydi Boubacar muy suñu waajur ak ku mel ni ne Cheikh Mamadou Bamba moom itamit rakkam la boo xam ne dafa fekk mu nekk Arabie Saoudite tukki ak sëñ Mansour ñu doon waxtaan ñoo ñëpp ñoo ŋënk kër ga ak moom Mouhamadoul Habib ba tax kër ga tey ñu toll nii ci rafet ci ànd booloo nekk benn kooki nga xam nag moo sosan gàmm ga moom mooy Cheikh Sida si Mamoud nga xam ne mooy sunu maam moo tëdd ca rawdu ba noonu mooy fi nga doon jël noonu naa fa siyaare ko sax ñaan fa yàlla gis nañ ko waaye dañ la si sant di la ci gërëm di la wax ne la euh, di nga ci gis loo xam ne balaa diwén yow yaay njëkk yàkkamtee demaat pakacar loolu la yàlla def ci raw rawdu ba tabaarakallaahu ñu am ci kontaan lool ndax bu ñu yàlla booleeg nit rek mhm. indi ñu bëgg mu yokk comme yàlla boole nañu ci daara ji fi ne nga bokk mhm. ci membre daara ji nga bokk fi ne lépp loo xam ne nii daara jaa ngi ko soxla fi ne duñ ko jigaaneeti fenn dañ naa la Souleymane nii li ñu bëggee nii li ñu bëggee ñu doxalee ko noonu kon nag kon tabaarakallaahu mhm. kër ga daal mu noonu daara jaa ngi noonu dëkk baa yàlla dafa def nag ñu am ci dëkk ba ak ci population ba yërmande du mat sëkk yoo xam ne nii suñ sañoon lépp lu doomu adama di soxla ñu mën ko jiggaane ci biteen di leen ko kon nag ñu bëgg di nga ñaanal ñu ci yàlla yoon wi ñu aw ñu euh, réussir ko gëm nañ bi mel hmm. ni maire hmm. Euh, xam naa ne ñu ñu ñu fàttali ko ku mel ni maire. waaw ko nekk kenn ñu ko bañ a gërëm. <laughs> El Hadj Dramé nekk suñu xarit. Euh, di jàmbaar lool ci commune ba. Mm. gis nga bi ñuy commencé sax euh, ouverture bi mu ñëwoon na. waaw ci suba gi moom ci suba gi. waaw te ak lu mu xat xat xat. macha allah ñëw na tabaaraka def présence am. Mm-hmm. wax ko wax muy ku yaru. Mm-hmm. ku bëgg ñëpp nag. Mm-hmm. def wax te wax fa waxtaan wu rafet. bu am solo ngeen ko ci waaw xam nga nag moom jeexal na. Hmm. moom bàyyi na waaye nag am na candidat. Hmm. candidat boobu nag mu ngi ñaan yàlla yàlla may ndam. am na candidat boo xam ne moom la óolu. Hmm. pour ko samp pour boobu nag. ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam. di sant it préfet. bu Ndofane. Euh, wax dëgg yàlla taxaw nañ ci seen taxawaay yu mat sëkk. Euh, lépp loo xam ne lu ñu waroon def la rek. ñoom def nañ ko. di sant tamit médecin chef bu Ndofane tax balaa ñooy ñëw fii ci moom lañ war a jaar mu yëg ko lépp lu ci war bu mu ko yëgee mu ñu def na ko di sant tamit gouverneur de la région ndax bu Kaolack ñu ngi koy sant di gërëmation spéciale tax parce que bu dee am na doom citoyen boo xam ne mu ci réew mi nekk ci commune bi di góorlu kilifa yëpp jóg jàppale ko. Mhm. bu paree moom itam war na gërëm kilifa yëpp. kon ñu gouverneur ñu ngi koy gërëm di ko sant. Mhm. mais tamit sant googu noonu lañu ñu àgg ba ci président rek. macha sant ko gërëm ko ci taxawaayam ci réew mi. ak ci Saalum. waaye tamit ñu sant docteur Janak. Mhm. bu baax gërëm ko ñaanal ko yàlla. sa sant docteur Lamine Ndiaye. sant docteur Abdou Aziz waaye tamit nag ci sant gi yëpp dañ koy jël yóbbu ko ci seen kilifa ga muy docteur Daba. daba ñu ngi koy siyaar ñu ngi koy ndokkel ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawaayam bi tax Pakacar am lii rëy na trop te demagut Pakacar waa Pakacar sax gisuñ ko waaye loolu yëpp maanaam yittee moo toll noonu ci ci ci ci doomi aadama yi yittee moo toll noonu ci population bi yittee moo toll noonu ci nit ñi daba xol bu rafet la yore ku bëgg lu baax la waaye noonu tamit la ñuy sante njiitu kudd ndax njabootam ñoo ñëwoon Pakacar te bu leen bàyyiwutoon bu Maguette Sène mooy directeur Maguette Sène ñu ngi koy sant di ko gërëm. keroog moom maire Malicounda yi uh-huh. moo jiitu maire uh-huh. hmm. loolu moom bu ko defee moom incha allah. Hmm. Eh, di nga ci taxaw. Hmm. bañ xamee bu baax. ndax man keroog bi ngay wane kii mi investisseur bi mu doon def. yaakaar naa moom la woon de. moom la woon de. Uh-huh. ca Pakajar. keroog man suma xol sedd na lool. Eh, ñu ñaanal ko yàlla. lii ñu yàlla jox ko yàlla mu jikko président wóolute gi ma xam ci moom. ba jox ko loolu yàlla ko ci yàlla may ndam loolu ñu koy ñaanal di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi kudd di vraiment di remercier waa kudd yëpp seen sofoor bi jaxate ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu mm. di leen siyaar mm. tàmbidu ñoom ñëpp Traoré mm. tabaarakallaahu Diop Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaara waaw yow tamit Souleymane kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax a baax site bi daal mooy situ daara ji na ñëpp xam loolu <laughs> daayira mu taa bi ne fi laa am nañu site mm-hmm. muy site bi waaw ñu ngi koy lancé ñëpp ne képp koo xam ne programme boo xamante na ko Souleymane yëg incha allah ñëw taxaw ci la ñu ca war a taxaw bu soobee yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu nekkoon suñu Ousseynou Dramé ñu àndoon ak moom ci gàmm gi mu def ay jéego yu am solo ci dëkkuwaay bi nga xam ne nii fa la fekk baax euh, mu nekk koo xamante ne nii référence la li tax mu ne référence la dëkk dafa baax boo fa bàyyeekoo ñëw lu la yàlla am nga delloowaat ko ci dëkk ba eh, loolu war na nekk jàngat ci ndaw ñi nekk ca dëkk ba war na nekk njàngat ci keneen ku dëkk sax ci beneen dëkk biir Sénégal gis ni muy doxalee war nga xam ne loolu bu bu gàmm jotee lépp itte bu mu amoon bana ko ah, am na ci ñoo xam ne nekk nañu ay ndawi daara mais bi ñu ñëwee ba situation changé ci ñoom rek ñu nekk beneen façon nit waaye boo ko xoolee da gis ne ba léegi daara moo nekk ci moom kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla eh, yàlla mi nga xam ne nii moo ko téel boppam yàlla yàlla yokk pas bi barke alxuraan bi jaay Seydou.